Euh, merci de nous suivre sur euh, sans limite fidèles internautes ñu ngi leen di euh, dalal jàmm di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am plaisir daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo di madame Bakhaw Diongue nekk secrétaire générale de la confédération des confédération nationale des travailleurs euh, du euh, Sénégal euh, mu yokk ci nag force du changement CNTS/FC ngir fas yéene rek waxtaan ak moom lépp lu ñeel lekk wàllug activité yi nga xamante ne ni moom la ñu yëngatu laata lool rek madame Ndiongue ñu bàyyi la nga nuyoon tekki internet yi leesaan ci sans limite. waaw kay asalaamaaleykum maa leen di gërëm d'abord yéen ñi nga xam ne yéen ñëw def ci entretien bi di nuyu. Euh, internautes yi nga xamee ni ñoo nekk sans limite di nuyu waale sunu centrale syndicale di nuy secrétaire généraux yi fi toog ànd ak man euh, wax leen ni leen euh, ñu ngi ci seen disposition pour question yi ngeen bëgg poser merci beaucoup euh, madame Ndiong mu mel ni rek ni ki samedi en tout cas premier mai mu nekk euh, fête internationale euh, du travail président Macky Sall génn na daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne moom moo di liggéeykat yi daal di tenir benn discours bu ñëpp jàpp ne c'est un discours franc en tout cas à l'égard des ñu bëggoon a xam dans l'ensemble li nga xamante ne moom la président Macky Sall tënk ndax dal na xel. voilà donc waaw premier mai moom xam nga tradition la. pour ñuy def dépôt cahier de doléance contrairement à ce que nit ñi li ñuy wax tradition la boo toogee atu lëmm liggéeykat yi dajale seen ay doléance ah ñaxtu ko def ko ci këyit tënk ko ci këyit jox la ko ni la dañoo bëgg mu dem ba ci président de la république ren aussi xam ngeen ni daaw amul ndax euh, mbas mi moo tax ren war a déposer cahier de doléance dem déposer ci cahier de doléance cahier de doléance yi nag boo seetloo li may wax partout moo di réponse président de la république adressé wu ko yeneen centrale parce que ñaar fukki centrale ak nangam ñoo fa nekk mais boo seetloo juróomi centrale ñooy lire seen cahier de doléance seen cahier ñoom boo seetloo ci réponse yi ñooñu lay tontu donc xam nga ñun ñuy wax ni am nañ ci satisfaction wala amuñu ci satisfaction dafay jafe bu fekkee ni dafay am euh, ay doléance yoo xam ni ordre général la nga xam ne ñépp ñoo ko bokk loolu mën nañ ci tontu mais doléance spécifique gu centrale yi ñoom ñoo war a apprécier ndax li mu leen wax doy na leen wala doyu leen ñun liñ ci mën a tënk rek moo di am na dëgg yoo xam ne génn na fa wax na fa parce que ñoom ñoo ko interpellé ci yenn question yi buñ ko ci interpellé mu joxe xalaatam muy xalaatu gouvernement am te yaakaar naa ni am na yoo xam ne nit ñi apprécier nañ ko positivement am na ñoo xam ne aussi ko négativement lañ ko apprécier loolu aussi ñun loolu lañ ci mën a wax ñun daal ñun déposé nañ suñu cahier de doléance suñuy doléance nag euh, fii lañ ko tënk ndax dañu war centrale yoo xam ne ni euh, d'abord man sama centrale d'abord fanweeri syndicat ak juróom-ñaar ñoo ko composé ci fanweeri syndicat ak juróom-ñaar yëpp syndicat bu ne indil nga ñu ñaar wala ñetti doléance ñu couché ko ci cahier bi te doléance yi boo ko déposé aussi ci table président de la république def naa ni secteur par secteur la te gouvernement bi mu ngi nekk en face yaakaar naa ni kaye yooyu ubbi ko saytu ko joxe ci ay réponse centrale bu ne moo gënoon document buñ ñu jox parce que jox nañ ñu fa benn document boo xamee ni man document bi dama ni tardivement lañ ñu ko jox ndax doléance yoo def 2019 ñu toog ba mille 2022 jour même premier mai ñu jox la document boo xam ne réponse ay réponse yoo yoo xam ne travailleurs yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko demandé woon nga toog ba deux mille vingt deux kooku xam nga yabaate la waaw parce que ñun ñëwuñu fi pour pour pour ay doléances yoo xam ne passé na parce que dafa am doléance yoo xam ne dafa dafa actuelle te doléance yooyu compte tenu de la situation de la pandémie am na doléance yu ëppoon solo doléance yi nga xamee ni man moom laa gis ci kaye bi ñu ñu jox. nga wax doléance yi ji ëppoon solo ndax mën nga ñoo wax rek ci tënk yan la xëy na du aajo ñuy tënk ñuy wax lépp mais ci tënk wala boog ci gën a am solo. tënk li ci am solo doléance li ci ëpp solo moo di condition de travail ak condition de vie tra euh, liggéeykat yi liggéeykat yi dañuy dañu jànkoonteel ay conditions yu doy waar. waxuma sax pandémie bi avant pandémie bi sonn nañu pandémie bi ñëw dàbbali leen xam nga ni suñu économie économie mondiale la sax mais économie sunu notre pays dafa nërmeelu entreprise yi bare yu tëj lool lool lool lool surtout entreprise nationale yi ñoom ñi nga xamee ni ñoom la ñu waroon renforcer pour que travailleurs yi mën gis seen bopp entreprise yooyu tëj Covid bi ñëw entreprise yu dàq ay milliers et des milliers de travailleurs ci secteur yëpp nag c'est secteur yi ciy gën a cité boo seetloo mooy secteur de l'hôtellerie ak de la restauration mais secteur yëpp foo laal day métti secteur de l'hôtellerie pourquoi ñu ciy accentuer moo ëpp travailleurs yu ñu dàq moo ëpp humiliation parce que dafa am secteur yoo xam ne ni comme dans euh, dans dans le secteur de l'hôtellerie tubaab yi ñoo jiite yenn hôtel yi te tubaab yi seen politique la ñuy def seen politique boobu bu ñu jëlee seen sunuy milliards dañuy yóbbu yóbbu ci Europe bàyyi fi bàyyi fi fii suñuy travailleurs ñuy trimer boobu doléance bu am solo la parce que pandémie bi la ci wàll bi nga wax sax mooy secteur hôtelier ak euh, restauration mu bëri ñoo xamante ni euh, jàpp nañ ne licenciement abusif lañ am euh, su ma juumul en droit en tout cas nit bu fekkee ne dañ ko licencier abusivement dañ ko war a jox ay indemnisation loolu itam du beneen problème boo xamante ne nii war nañu ko saytu ngir xool nan lañ koy régler. waaw foofu mën naa fi ñëw ndax dama ci am expérience am ci ay exemple yu bëri parce que tudd nga léegi King Fahd mais secteur bi gëna a metti ci ndàq bi mooy fii hôtel teeru bi hôtel teeru bi ah, première vague bi rek cent vingt six travailleurs la ñu dàq deuxième vague bi nag kenn mënu koo lim nga dem hôtel Faidherbe ñu dàq tu la fa travailleurs ya fa nekk ñoom dix-neuf lañ fa dàq nga dem King fat gis nga ay ay dàqi dàq lañ fa dàq nga dem hôtel jaaraama noonu lañ def nga dem ci Petite Côte bi lu nit ñi dul wax muy hôtel yi nekk Mbour lañ fa dàq kenn mënu ko wax te nit ñi waxuñu ko nga ñëw ci yeneen secteurs yi muy secteuru transport mu am ay difficultés yu metti parce que nit ñi dañ foog ne transport moo di ay car rapide yeeg ay njaganjaay mu bëree nag coow coow lu bëree bëri bëri plusieurs secteurs boo ñëwee dans le secteur de l'enseignement enseignement gis nga ni mu mel enseignement bi yàqu na complètement benn accord accord signé respecté ñu benn accord nga ñëw dans le secteur de la santé ba accord yi dara lañ ci signé wul nga ñëw dans le secteur de la justice signé ñu ay accords yi loolu wax dëgg yàlla moo ëpp priorité yeneen yu ñuy wax ci ci ci yenn doléance yi parce que secteur dans le secteur privé y a des ñun ñu ngi xeex ñu ngi xeex foofu ngay wax ci âge de la retraite di ci ñëw man dinaa ci ñëw joxe suñu position mais âge de la retraite ci secteur privé dafa am travailleurs yoo xam ni ma duñ leen bàyyi ñu dem 60 ans cinquante ans la ñuy yem cinquante deux ans wala 53 ans te buñ la de buñ la yóbboo à la retraite à cet te lage de la retraite ñu généraliser que à 60 ans soo demee ci institution sociale yi dañ la fay IPRES dañ la fay dañuy xaar nga am 60 ans pour ñu mën a commencer di la fay sa sa sa sa sa sa astuut bi nga xam ne moom lay jox moom la ñuy jox d'autant que léegi sax mensualiser nañ ko ndax fi mu nekk par trimestre lañ ko daan joxe dans le secteur privé donc y énormément de difficultés yoo xam ni tey bu ñu ko toogoon di ko càmbar di ko lim boo demee ci secteur u yi fii dàq nañ fii ay ñu bëri te fii mur de lamentation la gis nga pa période Covid bi boo ñëwoon ci fii ci bureau bi da ngay jomm ci yàlla ndax travailleur bu daw ngay chauffeur ñu dàq la ngay ngay domestique ñu dàq la ngay ngay leneen ñu dàq la fii ngay daw def fi mur de lamentation loolu moo tax ñun ñu ne léegi xeex bi benn central rek mënu ko xeex ñu ne nañ dajali ko bokk euh, def benn euh, nu mu tuddee cadre unitaire boo xam ni treize centrales syndicales ñoo ko ñoo ko ñoo ko jiite ñu ñëw fii ñu dajali ko ñoom ñu teg ma ci bopp bi biñ ma tegee ci bopp bi aussi tey gaa gàttoon na gàtt boo xamee ni foofu mënuñu woon dem euh, wax auprès du président parce que dañ ko def 72 heures avant le premier mais donc looloo tax ñun euh, sunu sunuy doléance dañ ko def doléance ay doléance cahier individuel mais dañoo dajale sunu ay cahier bu ngeen ñu seetloo ci télé bi dem joxandoo ko président pour wan ka ni ñun existe nañu. tral yooyu wala cinq di déposé xeexaluñu travailleur de seen bopp la ñuy xeexal lu tax ñuy xeexal seen bopp moo di chaque année. dañ leen di jox subvention six cent millions six cent millions ñu defal leen ko en deux tranches trois cent millions année bi trois cent millions beneen année léegi ñooñu normalement waroon nañu mën a taxaw travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk dans des difficultés waroon nañu fëgg ci taabal ji aussi di dóor pour ñu man entreprise yi nekk en difficulté ñu man leen suqali ba travailleurs yi mën ci gis seen bopp boo boo demee au niveau yéen de la presse démb rek dem naa si seen si seen sitting gis nga CDD yi ñoo fa ëpp ak prestataires yi CDD boo xamee ne bu ngeen liggéeyee 6 mois beneen 6 mois ñu dàq leen mu dàq leen sans droit fois même loolu yëpp dafa di parce que vous êtes des travailleurs comme nous looloo tax ñun ñu ñëw apporter suñu solidarité démb taxawu leen. pour wan leen ni ñu ngi ci seen kanam ñu ngi ci seen ginnaaw. nga junj sànq ni euh, âge retraite en tout cas président Macky Sall bañ ko laajee alignement bi wala boog allongement bi euh, à l'âge de 65 ans nanguwul xëy na teg na raison boo xamante ni nii xëy na kenn mënu koo dindi te mooy que ni majorité de la population sénégalaise en tout cas 35 euh, ans lañ am ay ndaw lañ te dañoo soxla li nga xamante ne moom moo di liggéey ban commentaire ngay am par rapport ak loolu. ci âge de la retraite benn centrale rek moo ko fa posé muy centrale lu Sidya Ndiaye moo demandé que ñu allonger l'âge de la retraite à soixante cinq ans te expliqué na ko après bu ngeen seetloo moom dafa ni dafa seetlu ni dafa am yeneen corps yoo xame ni dañ leen accepter soixante cinq ans comme ay magistrats yi comme ay médecins yi te moom mu ngi liggéey ci santé moom mu waxee ko noonu mais nun en tant que centrale syndicale en tant que cadre unitaire bi nga xam ne moom lañ tudde KIX si suñu biir muy treize centrales syndicales yi ñun li ñu privilégié d'abord moo di la retraite à soixante ans ñu généraliser ko dans le secteur privé parce que euh, ba pare ñun li ñu privilégié moo di xa ñii ñu dàq tey ak projet yii Macky Sall ni daf koy jox jeunes yi te ñu ñu dàq ñi ci ëpp les quatre-vingt-dix pour cent ay jeunes lañu ñu fexe ba boole leen ci projet yi wala ñu réintégrer leen ndax le président de la Macky Sall ci euh, euh, nu mu tudd moment wu pandémie bi dafa am loo xam ni dañ ko ko voteel muy euh, comment on appelle ça le truc de résilience waaw waaw mu signé benn ordinance boo xam ne qui concerne les travailleurs ordonnance boobu mu ne leen ci travailleurs yi nga xam ne dañuy dem à la retraite wala dañuy dem euh, nu mu tuddee euh, au chômage technique nañ leen di fay seen salaire à hauteur de soixante dix pour cent parce que là Macky Sall avait sorti des milliards yoo xam ne daf ko jox patron yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci ci ci ci hôtel yeeg yeneen yeneen entreprise yi te defuñu loolu dañu au contraire dañoo yóbbu nit ñi chômage technique ñu ñëw. ñu licencier leen sans droit ak licenciement abusif licenciement abusif yooyu ñun traité nañ ci ay centaines et des centaines de dossiers lépp mu ngi fii ci tribunal ndax ñu ngi dem ak ñoom ci yoon ndax li la ñu def teguñu ko fenn raison pour laquelle ñu ma wax la ni la ñun privilégié wuñu ay retraite à soixante cinq ans ñun li ñu privilégié d'abord moo di droit du travail nañ ko respecté li ñuy privilégié moo di képp koo xamee ne am nga sa entreprise wala nga am kii état bi jàppale la ba nga mën a jàppale travail travail retrouver leur dignité nous nous voulons un travail décent des salaires décents ba pare nit ki aussi mën a retrouver sa dignité gis nañ euh, ministre euh, du euh, travail monsieur Samba Sy ginnaaw rek bi nga xamante ne ni président ma Sall doon na waajal discours premier mai bi mu daal di wax rek ne en tout cas nguur gi def na ay effort yoo xamante ne nii daf ko doon jëmale ci travailleurs ginnaaw bi nga xam ne mbas mi mu ngi fi maanaam que ni ñoom ils ont consenti des efforts pour jàppale liggéeykat yi loolu noonu boo ko déggee tey jii lan la lay def. waaw la mu la mu ne Samba loolu mën su fekkee ne yow da nga def da nga ne tra def def nañu ay effort mais effort yooyu dafa war visible dafa war visible mais moom effort yi ñu def déggoo li ma la wax effort yi président def daf ko jagleel entreprise chef d' entreprise yi jox leen xaalis ñu dimbale leen pour ñu mën a mën a soutenir salaire yi mais defuñu ko loolu lan moo ci rôle gouvernement lu dul gouvernement bi sanctionné leen mais gouvernement bi dafa laisser faire moom il est le ministre du travail moom dafa war nekk du côté des travailleurs parce que moom dañ ko ni yow jawriñ nga boo xamee ni yow dañ la dénk liggéeykat yi donc lépp loo xam ne problème mu liggéeykat yi la Samba si dafa war nekk devant dafa war nekk su suñu wet dafa war laajte dafa war convoquer nit ñi centrales yii ñu convoqué certes ils se le les centrales les plus représentatives duñu centrale représentative centrale représentative boo xam ni yow mënoo woote grève ba nit ñi fekk si la loolu mënul nekk ñun ñi nga xame ne ñoo fi nekk nun daal tout à tout moment en tout lieu travailleurs ñu ngi ñuy fekk si ba suñuy biir kër yi pour duñu poser seen ay doléances du fekkoon réellement ces centrales soi-disant représentatives ñu ngi fi di régler problème yi tout le monde allait applaudir mais Samba si moom wax dëgg yàlla c'est ministre boo xamee ni man bëgguma wax dara ci gan ci gannaawam mais wax dëgg yàlla euh, déception rek ñun lañ ci am Euh, démb demoon nga tenir part wala boog jàppale euh, ñi nga xamante ne moom moo di taskatu xibaar yi ba ñu amalee ab sitting euh, devant ministère de la communication ni kii ki démb foofu noonu lañ bëggoon a xam dans l'ensemble lan nga gisoon ne moom moo gën pour à ce que taskati xibaar yi daal di koy def pour rek ñu gën leen a mën a jox respect en tout cas ci liggéey bi nga xamante ne nii moom la ñuy amal. waaw xam nga taskatu xibaar yi dañu leen di gërëm bu baax ñu ci seen wet gis naa bu baax taskatu xibaar yi déglu naa seen discours mais xam nga seen discours dafa dul discours syndical xam nga discours dafa am loo xame ni da ngay joxe ay ay ay ay nun koy waxee parce que il parle de votre convention seen convention boobu dafa am solo parce que bu ñu bu fekkoon convention boobu xeex ngeen ko am na gaa convention bi am na mais l'applicabilité demeur te yéen xale yi surtout vous les les jeunes reporters yéen a gën a sonn li ngeen war a xeex moo di dajale ko y'a le syndicat Synpics y'a aussi je parce que benn kiiwu les jeunes reporters da ngeen war a boole seen ay doléances imposées parce que la presse est un peu divisée ci sama xalaat parce que bi ma li tax ma ne dafa diviser maa ngi ko xam ci événement wu jeunes yi amoon ci ci ci ci ci euh, nu mu tuddee mars xaw ma avril bi passé événement boobu yaa a des de presse qu'on a saccagés tout le monde devait être nu mu tuddee uni pour xeex loolu parce que tey bu bu dalee kii suba mën na dal keneen. il faut que vous vous il faut que yéen ngeen xeex pour que seen condition de vie et d'existence mu réglé wu patron bi ngeen imposer que bu ngeen toogoon une journée nationale sans presse rek lépp sotti une journée sans presse journal du génn rajo du wax télé du wax yéen ñëpp ngeen taxaw def benn say yaakaar naa ni léegi seen problème dina réglé wu. di nekk ab solution bu am solo boo xamante ne ni euh, madame euh, préconiser nga ko ñu ngi ci jeexintalu émission bi waxtaan wi noonu la tool lu ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu yu mujj. waa sama kàddu bu mujj moo di gërëm leen d'abord gërëm leen ci déplacement bi ngeen def yaakaar ñu xëñ na li ñu wax xëñ na waxuñu lépp mais am na loo xam ne tënk nañ ko pour wax ko gërëm leen gërëm travailleurs yi yépp travailleur yépp laa wax képp koo xamee ni yow liggéeykat nga te ñu ngi bafoué sa dignité di la di jéem a toroxal fexeel ba ñëw seet si ñu ñun ñu fexe xeex ànd ak yow xeex ba loolu sotti remercier sama centrale muy CNTS FC mais remercier CUCS mooy cadre unitaire bi ma la wax boo xamee ni man la def ci bopp bi te centrale yi jiite ko ñu ngi nii toog ak d'autres centrales yoo xam ne ñoo ko ñoo ko jiite ñëw teg ma ci kanam yaakaar naa ni lépp loo xam ne xeexu travailleur la bu soobee yàlla dans les jours à venir di ngeen ñu dégg ñu poser ay actes yoo xam ne des actes concrets loolu moom am na solo di leen gërëm bu baax di gërëm seen euh, seen seen site bi nga xamee ni wax dëgg yàlla man tout les jours dama koy su dama koy dama koy seetaan yéen a ngi def liggéey bu rafet liggéey boo xamee ni wax dëgg yàlla yéen a ngi bëgg sax nangu télévision yi parce que vous les réseaux sociaux vraiment képp ku liggéeyal tul ak yéen gaw moom gaw ma nga sore bu baax madame Bakhaw Ndiong yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo di la jaajëfal itam ci sa disponibilité di leen jaajëfal itam mbokk internaute ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.